mbokki Sénégal mbokki réew mi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 ngañ demba ak waali njaay a tureer na lay lay lay ngañ demba ak waali mata guy ganis nay soq ku doon ma samba jeng digi joor na sekk sekk neegi maaw men men fi géej ña ngeen yaa nga caaro yi géej tey la sama yaane ngaan doole mooy bëre wàcc ma daan naa la warul ku daan da nga yi féete kaw su xëtëra leen léegi mbër sa jël la fanaanoo tey la sama yaane ngaan doole mooy bëre man sama rakk ji sox bëgg naa la bàyyi leen seen yaaba gite laare laare la soqu ñaari mbër bu nu roofoo daanoo njaaxaat naay ku ne jël sa naan kii moo daan sama champion baax ngi soq ngi teel a xëy guddee wàcc fonk ay maagam respecté waa Pikine ndamu mu na ngi waaw soqa nge ni rakku Eumeu Sène a ngi rakku Ama Baldé baa ngi nii rakku Boy duma taaye di la jiin Pikine champion yaa ngi fi Balla Bèye champion la Tyson champion la ndaanan yaa nga banlieue Pape Sarr yow seede mama way tey la sambayana ngaan sama rakk jaa ngi nii champion baa ngi nii bàyyi seen yaa ba gi te laale laale baaxu góor tey la samba yaa ngaan doole mooy bëre Pikine nang sa ginnaaw waa lii mun ma ko cee ñàkk bañ a wax ndax da a ñëw pikin seet si champion bu mag muy sama rak di rak Vieux Touré sama seex bi kon bu ngeen ñëwee muy def point de presse ma yam ci mënu def lu dul joxe sama participation ci loolu champion la vraiment man la muy def teel a boppam ci làmb bokk nag ci ñi nga xam ne ñooy yaakaaru làmb yaakaaru pikin lañ koy ñaanal li ay magam dégg mu dégg ko muy roi des arènes ci barke Seydina Mohamed am na fulla gi am na fayda gi am na jom gi day xëy di entraîner yàgg naa ko gis vraiment mu màgg ci sama keppaar kon nag bu ñekkee pikin ngeen fekk ñu fii ci complexe bi nga xam ni artistes yëpp a ngi fii ñoom Matador rappeur yaa ngi fii Leyti Fall Ivian ak artistes yeeg ñi fi nekk ñëpp kon vraiment bu ñëwee fii ci xolu pikin digg Pikine di fi def point de presse non buñ ko fekkee il faut que ñu joxe suñu participation waaw vraiment daal yow amoo droit reculer ca kanam rek jaajëf. Mhm. Euh, waaw. waaw nekk ci liggéey bu rëy rek parce que yàlla dafa dogal euh, Yves ku ne xam na ni ci simbi la jànge way ak ngénte kasak yi ak tànn béer yi wane nañ ci suñ bopp nag ndax def nañ ay album wax dëgg fa yàlla bu ngeen xoolee jamono ji rek lii weesu xëy na mbas mi moo ñu téye mais lancé naa benn morceau bu ñuy wax fël-falaale yaakaar naa TikTok yi ku dugg di ko gis en même temps ak wax Thiès parce que fii ci studio bi nii Africulture fi lay enregistré sama album international parce que Yves man na mbalax man na way traditionnel mais nag dafa am fu àdduna toll ñu war a exporter suñu musique bi jéem ko jaay mu dem sur le plan international loolu moo tax may def beneen façon musique boo xam ne bokkut ak sax bi ma nit ñi xamee commencé album bi déjà pare na war na génn bientôt mbas mee ko xaw a téye nii su weesoo loolu taxawal nañ benn collective Euh, nga xam ni 16 communes d'arrondissement yi artistes yi nekk ci banlieue bi yëpp vraiment ñi ngi ci collectif bi mooy ñi nga xam ne génération bi nga xam ne samay rakk lañ ak ñi nga xam ne dama maas ñoom jamono ak ñi nga xam ne suñuy papa ak suñuy yaay nekk ay musiciens yoo xam ni parce que boo nee aar rek ni banlieue mais lii nelaw ci banlieue bi il faut ñu yee ko mais kenn duñu ko yeel ñun bopp man nag ci li nga xam ne ak sama vraiment expérience bi ma am ak connaissance bi ma am ne 1500 artistes ngi ci parce que li ma def mooy dama woo naar yi tur bu naar woo pël yi woo joolaa yi woo séeréer yi woo olof yi ñuy def acoustique ñuy def reggae ñuy def ñëpp ñu ci bi xam naa bientôt daal dinañ gis Yves Niang ak album international mais dinañ gis beneen leneen lu rëy loo xam ni banlieue dina ko génne parce que li doon nelaw ci banlieue bi yëpp ginnaaw yàlla du suñu man-man daal mais yàlla dimbal nañu ba dajale naa ñëpp te loolu yombul ngeen ñaan ci rek bis ci tollee dina leen woo yéen ñëpp ngeen ñëw. waaw ah, ginnaaw bi ñu sante yàlla. julli si yonent bi. ñuy sant suñu ñaari woy waajur bu baax a baax a baax. sant waa Pikine bi ñu dëkk. sant waa ginnaaw raay bi ñu juddoo. sant waa àdduna yëpp. comprendre nga. di wax nag tey li ñu fi dajale ay mbir la yu am solo yu am solo solo sax waaw ndax tey dama toog xëy gis ñu dugal soq ci sit internet yeeg fu nekk comprendre nga di expliquer soq a été par la police déféré nañ ko te pour man <clears throat> loolu rafetul quoi rafetlu ma ko dara dara dara dara wax dëgg fa neex yàlla parce que tey ñi ko def laay balaame ñi ko dugal. parce que tey yéen yéen a làmb yéen yéenay médiaawul làmb yéen làmb tax ngeen di liggéey tey bu du làmb mun ngeen dem liggéey leneen mais bu ñu leen reconnaître si làmb lañ leen reconnaître comprendre nga te dama koy gis souvent buñ nee teel rek yéen médiawu làmb yéenay njëkk a dugal ay information yoo xam ni dara leeru ci te loolu warul rafetlu wu ma ko parce que tey ñun ñëpp benn lañ. tey kum ci doonoon sa frère doo ko jàpp di ko dugal ci ay média bu dul dara yéen ñëpp xam ngeen ma yéen a ngi sama numéro da ngeen may soxla di ma woo ci lu nekk ma leen ciy wuy si ñuy liggéey te musuma cee ñàkkal fayda kenn musuma see santage kenn heure boo leen ma wooyee ma wuy leen heure boo leen ma soxlaa interview dama leen koy yombal ngeen ñëw ñu def ko mu jeex ngeen dem ma dem kon boo leen déggee dara ni tell war ngeen a mën a yëkkati seen téléphone ngeen woo ma balaa ngeen di def dara mel ni waa ngeen ay liggéeykat ngeen tey da ngeen a marqué seen i nekkoo leen site bu ndaw loo leen dugal monde entier ñëpp koy gis kon war na balaa ngeen di dugal dara da ngeen ko war a xool xoolaat ko parce que yéen Lutte TV lañ leen di woowe woowewuñ leen leneen lu dul Lutte TV comprendre nga te ñun ñooy mbëri kon tey nit ki sa biir kër sa doom bu defee dara ci biir kër gi nga ko war a rectifier mais pas ci ay internet internet ak ay affaire yéen ñi fa nekk ak ñeneen ak yeneen site ak yeneen site man boo diggee ma cité Lutte TV parce que ñoom ñooy sit bi gën a mag actuellement nii ci làmb laa mën a wax comprendre nga te ñëpp leen di bàyyi xel ay jàmbaar ngeen mais am na loo xam ni rafetul Boucar Ndour maa ngi koy féliciter di ko remercier ndax ba affaire bi amee woo na ma lim ci war a def yëpp def na ko ci ak Beuz Lamine suma waay la nee nañ ki ko bind moom mooy ki leen di bindal xaw ma nangam ak nangam mais loolu warul parce que nit ñeng waaw neen dafa reprendre article bi te loolu du yoon man pour man d'accord ma ci loolu quoi parce que ñun ay xale lañ mais tamit ay kilifa lañ ay responsable lañ ndax dañoo am famille am jabar am yaay am ay doom am ay nit am ay mbokk tey sama téléphone bi fu nekk nit ak ma fay woowee ndax li ñu bind comprendre nga soq defeere nañ ko ndax lan da doon xeex ak policiers dañ ko jël seeg renfort loolu rafetul tey nit la comme nit ñëpp tey comme si doonoon yow xool ko ci sa bopp sa yaay du nelaw du tëdd guddi du tëdd bëccëg ci ay affaire police kon loolu rafetlu ma ko lu ma métti la nag comprendre nga loolu laa amoon lu ma ciy leeral di xamal ñëpp ni soq a ngi si jàmm aw ma benn problème ak kenn. dugguma ci yëfu jàmbur defuma lu ñuy tere waxuma lu ma warul wax sama toog ruq laa toog jàpp sama njàmbur bugguma ci woon sax wax mais boo gisee ma ciy leeral parce que tamit dama am famille am ñu ma bëgg am ñu ma bañ comprendre nga moo tax ma ciy leeral mais loolu weesu na pare naa ci leneen li des mooy dañ fi dajale pour suñuy frères yi nga xam ne tey ñu ngi tëdd feebar ñu soxla ci ñoom ndimbal moom moo ñu fi gën a sax moom moom man moo ma gën a ñor sax ay waxu soq police wala lii wala benn affaire lool benn point la bu ma doon leeral rek parce que nit ñee ngi may woowee fu nekk di expliquer di wax loolu la tey boo gisee sama wet mobile la ngi nii toog boo gisee sama wet bi Pape Sarr a ngi nii toog comprendre nga ñëpp a ngi fi Aziz Dji nekk ñëpp a ngi fi taxaw rien ko pour suñu frères yi nga xam ne tey ñu ngi tëdd feebar ñuy ñaan ñoom ndimbal pour ñu dimbali leen loolu rek moom moo ñu fi indi. ci man dama fubali woon fubali jugee fubal ànd ak booy di ñibbi dajeeg waa police Pikine sumay frère lañ may xarit lañ ñooñu man ak ñoom sekk nañ lu nekk man police Pikine bii nit bu fi amee problème damay woote foofu def intervention kon du ñooñu ñoo may arrêté pour ay max man tey marqué naa sama empreinte fii ci dëkk bi tey ba Grand Yoff ak ba fu mu mën doon. yaakaar naa bu ñu may arrêté duñ ma arrêté ci yu ñàkk fayda yooyu loolu détail bu ñàkk fayda la man loolu bi ma ko yëg maa ngi sama kaw kawlal tëdd barki alxuraan sama téléphone bi di xar ku ne di ma woo naan soq dañ ko defeere ndax ay affaire u masque da doon xeex ak policiers yi man loolu bi muy am maa ngi sama biir kër tëdd mais nag wër na àdduna ndax damaa dugg ci site bu ñu naan Lutte TV xool gis ñu dugal ko cinq minutes lu mat cent personnes capturé nañ loolu lien boobu envoyé ma ko nga ku ne di ma woo nit ñi am ñu musta am sama numéro sax am nañ sama numéro yëkkati seen téléphone di ma woo ñi nga xam ne woo nañ ma jotuñu ma sax def nañ ni dëgg la parce que du tout le temps ngay woo nit ki rek jot ko mun nga ma woo fekk ma nekk ci leneen nga ni kon dëgg la booy bi li ñu wax dëgg la te nit koo xam ne day dund ci àdduna yàlla sàqul ko amul noon koo gis ci àdduna muy dox am na ay noon am na ñu ko bëgg am na ñu ko bañ comprendre nga mais man nag lii dama ci gën a xamaat sama bopp gën a xam ne am na ñoo xam ne tey jaral naa leen lu nekk ndax woo nañ ma lu nekk wax nañ ko ci lu nekk daj nañ ko ci comprendre nga maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne man aw ma benn problème maa ngi toog nekk ci sama jàmm. mais tey lan xale yu picc yi nga xam ne gëmuñu feebar bi man feebar bi am na ak amul waxuma ci ndax am na walla amul wóoruma li ma wóor xam nga mooy lan mooy. nañ bàyyi nit ñi ñu reprendre seen activité nekk ci li ñu war a nekk comprendre nga parce que ñun ay ndaw lañ yoo xam ne dañ yaakaar te ci li ñu nekk nii lañ yaakaar boobu ba léegi ñu ngi ñu tëj puusuñu paasuñu te tey dèjà ñu ngi ñuy tudd ci ay affaire police comprendre nga te ñun du ñu jaay suñu ngor ci lenn mais li ñuy wax mooy nañ ñu bàyyi ñu nekk ci li ñu war a nekk dem liggéey ndax lii la ñu am liggéey ngir suñuy famille loolu dong lañ ciy wax. waaw mais ñun defuñu jotewuñu ak police dara amuñu lu ñu war a jotee ak police. du Lamine tudd Lutte TV xam ne ni mu ko waxee ne def tey Lutte TV nekk au devant de la scène site yu bëri wala tey Sénégal yu bëri du ko seetaan mais Lutte TV tey maanaam dafa am page YouTube mais dafa am tamit maanaam site internet boo xamante ni maanaam dañ fay bind ay articles. ki ñuy bindal article nag li si ëpp maanaam vidéo yi lay jël di ko bindaat article wala muy jël sunu lamb di ko bindaat article mais maanaam article bu mu munti bind day bind source bi même maanaam tuuti sunu lamb bi sa heure bu ko bindee sax day bind si suuf kon ça veut dire que maanaam tey xëy booy bi bu reprendre article lu jàmbur bind si si soog day bind que ne soit Baol Baol la ko jëlee wala wala BP Actu la ko jëlee wala Seneweb la ko jëlee te article bi moom bi mu koy bind tey moom maanaam article bi daw na si si si si site yu moom mu door reprendre at article bi te nee na moom sax bi li tax mu reprendre parce que dafa vérifier tapé Google euh, gis maanaam lu mu war a cinq article bind ko moo tax moom mu reprendre at article bi mais soq bi ma dégganteeg moom maanaam newoon naa ko ne au nom de Lutte TV ñu la siy jégalu parce que xëy na bind nañ loo xamante ni tey fake news la mais ni ma ko waxee rek tey Boucar Lutte TV bi nga xamante ni tey maanaam dafa jàng def formation am na loo xamante ni tey yaakaar naa tey arrêté nañ fi mbër sax journal suñu lamb bi ñu ko sax te ñun bi ñuy def revue de presse defuñu ko waxuñu ko si revue de presse kon tey kenn mënul gis Lamine wala Boucar di bind si mbër loo xamante ni tey li diine santaane waxuma la leneen kon moo taxoon mu nekkoon éclaircissement boo xamante ni tey bëggoon naa personnellement andi si soog di xamal que ne maanaam parce que ñoo bokk liggéey bi mais tamit maanaam bu la nit ñi gëmloo loo xamante ni parce que presse bi am nañ doole boo xamante ni tey sax maanaam tey mënul dem guerre ak bi kon tout temps da fexe bu lënt lënt amee ngeen seppi li ñuul si soow mi bokku ndey bokku baay parce que yaakaar naa ne yéen a bokku liggéey parce que tey message bi nga bëgg a jàllale nii tey si presse nga ko bëgg a jàllale te fake news mënul ñàkk si star parce que yow yoo la yàlla pour rek nga pour rek nga dugg seen site pour ñu abonné kon loolu tout le temps maanaam foog nga am esprit de dépassement boobu noonu mais ñoo ngi lay encouragé di la félicité mais tamit di la baaluwaat ak au nom de Lutte TV waaye tamit ci presse bi parce que yaakaar naa ñun ñëpp nga fi fekk nii tey dañuy déggante ñoo bokk ndey ñoo bokk mbaay ngeen baal maa sama digg bàmmeel laa toog di wax sama avocat man Sokh site yi ko bind yëpp site yi ko bind yëpp dugal ko maam capturé na seen lien buggoon ci def ay yéeg ak a wàcc ak ay pelent ak ay affaire man maa ni ko dara jaraluma ko barki Seydina Muhammad ak nodd bi maa ni ko dara jaraluma ko parce que man naa nangu man nit di ma yóbbu ci yoon ñu yéeg ko wàcc mais man du man maay kii jël nit di ko yóbbu ci yoon mu yéeg ko wàcc rawatina ñoo xam média boo xam ni tey mag ñoom ñoo sékk làmb suba damay simmee ko war a taxaw ñu war a téye seen micro di rapporter soq buy bëre kon du man maay kii yóbbu benn journaliste ci yoon ngir lim ma def lii boo gisee ma def ko maanaam avertissement la pour ñu arrêter parce que nit koo xam ne tey da nga am njaboot am famille am looy wax ci moom na doon lu leer parce que tey kum ci doonoon sa fraire boo bokkal ndey ak baay doo nangu ñu médiatiser ko man foofu laay waxee pour xamal leen ni la Sokh nekkul n'importe qui man n'importe qui laa buy dox moom laa jàppee sama bopp mais nag tegu naa fi ma war a tegu ndax am naa avocat bu may couvrir am na ay responsable yu nekk sama ginnaaw am naa staff balaa may def dara dañuy wax ni ma soq lii nga war a def fii nga war a teg sa tànk fee ku dugg ci samay affaire ci yoo xam ne waroo ma cee dugal wala nga bugg maa dugal ci loo xam ne waroo du man ak yow parce que dama dénkaane sama bopp am avocat boo xam ni mooy gérer sama lépp comprendre nga tey balaa may wax ak Boucar sax damay dem ci moom ni ko lii war naa ko wax ak Boucar mu ne ma lii nga war a wax ci droit bi nga am droit wax ak moom waroo wax ak ci lii comprendre nga moo tax ma ciy wax mais loolu bu jeexee jeex na ñun ñëpp ñoo far boo gisee ma ciy def ay leeral nit ñi woowee nañ ma fu nekk ñii gëm nañ ko ñii gëmuñu ko te ñi ko gëm moo ëpp ñi ko gëmul parce que tey xam naa suma bopp xale laa te dama terrible dugg naa def naa sama jeunesse ba mu mat sëkk am na loo xam ne boo ko waxee ci soq ñu bari dañ naan dëgg la ñi naan du dëgg moo ëpp ñi naan dëgg la moo koy ëpp comprendre nga moo tax te xam nga fu mu toll nii duñu ay xale yu ndaw ay magum jëmm lañ am na loo xam ne dañ koy dépasser suñu bopp dem nekk ci leneen fu mu toll nii gëmuñu lu dul jàmm suñu borom xool tey li ñuy avancé loo ñu avancé si parce que dañoo nekk ay nit ñoo xam ne dañoo yaakaar talatuñ caaxaan talatuñu fekkee sax fuñ koy defee barki suñ Tuubaa waaw loolu la rek waaw di wax ñëpp nag maa si jàmm nekkuma ci benn loxoy pëlis kenn teewuma kenn defuma dara maa ngi nii toog di wax waaw.